alors est-ce que vous nañ am ku quelque quelques kàddu bon. alors. Madame Dieu, bonjour. Bonjour. <laughs> alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui euh, pouvoir venir ici alors qu'on avait entendu beaucoup de rumeurs concernant vos relations avec la famille On ne pourra jamais empêcher les gens de parler. Quoi. On n'a pas de problème avec la famille, il n'y a, pas... a, pas de problème. On vient quand on peut, on se voit quand on peut, mais euh, on n'a pas de problème. On pense toujours les uns aux autres. Vous résidez actuellement au Sénégal ou bien vous êtes Oui, à Saline. À Saline. D'accord. Vous êtes venu passer la journée aujourd'hui en famille Oui, et puis aller au cimetière. Ah, on au cimetière, on vient voir après toute la famille. C'est les habitudes. C'est bien. Ça va. qu'est-ce que ça fait de venir en famille Ça fait du bien. Ah oui.

saa yu ñëwee fii daal dem armeel ya ñëw fii ci kër gi waaw fii c'est la famille maison familiale man maa fi nekk moom bu ñëwee fii boo jógee fii dem naa armeel ya après mu dem waaw dana gis famille bi donc euh, noonu la. mu yéen fii ak yéen. yéen waaw loolu la de loolu rek la de. <laughs> alors ah soxna si yan kàddu nga ciy sànni. waaw kàddu kontante rek macha allah. laa mhm. ciy sànni. Mhm. parce que lii moom lu rafet la lu neex la. Mhm. parce que bu bëggee génn àdduna mais dafa mel ni génnul àdduna parce que bu ñëwee indi famille am. ñu nekk ak famille buuba dafay mel ni relation bi mi dox ba tey macha allah. nañu ko yàlla sàmmal rek buuba tamit yàlla. Euh, taxawu njabootam sàmm leen aar leen ba ñu yeggalee seen ndaw seen sago yàlla bu leen dara gàllankoor ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man loolu rek laa di ñaan kon li ñuy wax yëpp nekk entre yéen ak jabar bi relation yi neexul kon loolu amul non <laughs> relation yi moom lii yaa gisal sa bopp moom wax dëgg yàlla mhm. yaa gisal sa bopp mhm. ah. basqueteuses. Image Elle va être basquetteuse. Inch'Allah. Elle est pas grosse, ma fille. T'es étranglée. Oh Non, tu veux que je dise que je dise que je dise que je dise que je dise que je dise